jërë ngeen jëf mbokk internet yi dalatalee nag jàmm ba tey rek am mbégteeg bànneex ñooñu si patriote yi féete foofee sa France ñooñu nag collecte boobee nga xamante ne seen rek parce que patriote yi ña def koy def ñooñu rek ñu daati dajal rek lu tolloog cent vingt cinq million loole nag mu doon ab xaalis bu takk lool bu bëri lool ñooñee patriote yi féete foofee sa France mu doon waa Pastef daat koy jagleel ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko moo xam naam waajal lu jëm si wàllu campagne élection yi 2024 yi mu doon patriote yi yooyee féete sa France collecté xaalis bu bu takk bu bari lool toll si cent vingt cinq million cent vingt cinq millions kon nag loolee yaakaar naa mu doon xaalis bu bëri ñoom nag ñaax ñi nga ne si ne tamit ñoo féete Sénégal te jamono ji ñu nekk rek si collecte bi nga xamante ne seen rek moo di waajal li nga xam ne moo di campagne loolu nag patriote yi ñoo ñee féete France pacifiens yi def ko nag ñu si bëree bëri di si kontaan ak di ko partagé bu baax a baax ndax nemmeeku nan xaalis bu bëri ba nga xamante seen rek collecté nañ ko pour jagleel ko ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko nam bu nekkulee candidat mom dan ka jagleel li nga xamante ne si moo di boobu la xaalis bu takku lool ñu naat koy dajale foofee sa France